Euh, jërëjëf alors ñu daal di rek fàttali ne aussi euh, yaa ngi ca CPI cour pénal international su ma juumul alors ñu daal di wéyal waxtaan wi nag euh, xam ne daañu waxtaanee tey ponk yu bëree bëree bëri bëri bokk na ci li nga xam te ni moom moo nag nekk manifestation yi nga xam te ni fan yi ku jë ci gi nas nañ ko waaye tamit lépp loo xam te ni jëm na ci wàllum yoon bëri na ci ay mbir yoo xam te ni bëri na ay kilifa. yu ñu ràññee lool ci wàllum yoon yu génn def ay xabaar waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum euh, politique troisième mandat ak ñoom seen yooyu yëpp bëgg nañ coo waxtaan ak tey ki nga xam tey moom mu nekk suñu gan di juge Hamidou dem waaye nag fan yi ñu génn gis nañ nga def ab euh, conférence de presse sortie Euh, sorti boobee nga naqarlu ci ay ponk yu bëree bëree bari rawatina ci lu jëm ci wàllum yoon waaye tamit anam bi nga xamante ni moom la yore réew mi euh, ñu toog ab diir kenn déggu la kenn gisu la ñu xëy rek gis la nga def sa conférence de presse donte ni euh, su ma juumul yaa ngi ci aussi màggalaale cinq ans yi nga xam xamante nii démissionné nga ci yoon waaye mbir mi dañu bëgg xam ndax wane na yaa ngi fi ba tey la wala ruube game bi comme ni ko xale yi di waxee la <laughs> Papa mhm. maa ngi lay remercier ci laaj bi ci mhm. am solo moom mooy li nga wax ni eh, duñ ma bëri duñ ma gis trop ci média yi effectivement aussi dafa fekk ni man tamit dama am liggéey ñu ngi mhm. ci activité politique bi ñu ngi ci suñu liggéey parce que bi nga ma mujjee woo pour invité ma xam nga ni nekkuma woon ci réew mi maa ngi nekkoon sama liggéey dëgg la donc ñun activité politique bi dañ koy def parallèlement ak liggéey bi nga xamante ni Mhm. moom moo ñuy permettre ñuy dund. dëgg la waaw loolu aussi dañ koy préciser. Mhm. mais euh, néanmoins ñun acteur politique lañu. Mhm. même suñu nekkul ci réew mi ñu ngi bàyyi xel li xew. jàpp naa nag ni intervention chaque fois euh, gëj gëjuma communiqué. mois de décembre. def na ñetti weer mais loolu tamit c'est choix. jàpp naa ni nit ki suy wax na fekk ni am na gis na soloy wax. d'accord benn. Mhm. ñaareel bi muy wax loo xamante ni aussi intére réew mi la. Mhm. waaw wala aussi mu toog gis ni situation toog na loolu ko acteur politique waru ci bañ a àddu. Mhm. lu taxoon ñu def suñu conférence de presse bi ñaar la. benn bi bi ñu démissionné. Euh, dat anniversaire bi le 26 mars la. Mhm. Euh, mu euh, fekk aussi mu am une actualité judiciaire bu am. Mhm. boo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp gis nañu ñu toog ñu war a def taxaw seetlu. Mhm. ñun li ñu dugal ci politique je pense que ci acteurs politiques yi. ñu sommes les rares yoo xamante ni nit ñi mën nañ xam ni ah kii de lii moo tax mu dugg ci politique. benn acte de protestation la am par rapport ak fi mu nekkoon mu teggi ndombol tànkam démissionné ci magistrature mhm. ba pare mu ne lii pour ñu joyanti ko pour ñu changer ko il faudrait que ñun ñu dugg ci langue politique bi loolu lay mber ngemb de loolu wax mber ngemb mber ngemb du loolu Ah, <laughs> Mandione <laughs> mer ngembu ah. suñ koy wax man de ci li ma ci li ma wolof nag du du du kajoor kajoor laa kajoor la <laughs> laa juddoo mais mer mhm. euh, mer ngembu mm. li ma ci li ma ci comprendre moom mooy mm. nit koo xamante ni dafa nekk fenn mer ci situation personnelle am mhm. mu ngembu jóg fekk ni intérêt personnel am moo ko tax a jóg d'accord mer ngemb foo ko gis rek dafa am benn intérêt personnel. bu ne ci ginnaaw su fekkee nag mer par rapport ak situation réew mi la. Mhm. ah loolu moom jàpp naa ni bon sénégalais yëpp war a mer ngemb su fekkee loolu lañ ko comprendre. Mhm. parce que nit ki jàpp naa ni taxaw protester gis loo xamante ni du yoon gis loo xamante ni du intérêt réew mi gis loo xamante ni day yàq. Mhm. nga ñëw taxaw ci wax ci walla def ci. ya yaakaar naa ni loolu euh, rôle Euh, citoyen bu ne la mhm. parce que dañ koy renvoyer sax ci citoyenneté mhm. ci devoir wala obligation yi nit am mhm. gis benn mbir boo xamante ni day yàq seen réew wala benn mbir bu dul yoon ñu ñëw ñu taxaw ci waaw d'accord léegi nag su ma delloo ci protestation boobu bi ñu ko defee ba pare dañoo ne ñun dañuy dugg dugg ci langue politique bi pour xeex loolu mais suñu toogee diir xool dañuy jeter un regard waaw ñun liñ doon xeex li taxoon ñu ñu ñu ñëw ñu ñu démissionné. Hmm. est-ce que am na ay amélioration taxaw seetlu taxaw seetlu. Hmm. loolu jàpp naa ni yoon la woon te cinq ans diir bu euh, xaw a euh, yàgg la. cinq ans mën nañ ñax mandat la mandat présidentiel la. effectivement <laughs> waaw ku toog hmm. cinq ans nag. defoon dara nga xool aussi. war nga ñëw taxaw ne ah man de bi ma démissionné ba tey. Mhm. lii moom ma taxoon def démissionné maintenant constat bi lii la. Mhm. waaw je pense que constat bi du man rek maa koy def dama koy def ak sénégalais yëpp. parce que ñun tamit gis nga acte de démission yi bi ñu koy def. Mhm. maa ngi koy wax même bien avant may démissionné bien avant man may démissionné bindoon naa di ne sénégalais nañu bàyyi xel ci justice. nañu bàyyi xel ci importance bi justice am hmm. jàpp naa ni léegi citoyen yëpp rendre nañu compte ci place centrale hmm. bi justice am ci réew mi hmm. waaw parce que dama koy wax di ko répéter justice su amul jàmm du am benn justice su amul démocratie du am mais dégg naa la nga ne lu toll ni su ma koy joxe exemple mooy lu toll ni tarfatal ay ni sax wàññeekuwul ci li nga gisoon ci yoon ba tax nga génn ci yoon loolu mën nga ñuy jox ay firnde. waaw mais xam nga euh, Mandione. Mhm. d'abord justice dañuy ne dañ ko rendre au nom du peuple. Mhm. Euh, justice mooy foo xamante ni képp ku yaakaar ni tooñ nañ la fa ngay dem. Mhm. pour bëgg ñu ñu jox la yow euh, sa cër. justice moom mooy arbitre. conflit boo gis muy familial muy conflit politique muy conflit électoral muy conflit pénal boo gis rek lépp lu am conflit rek dañuy ne nañu dem fi mbaxane nekkee yoon nit ñi nag suñuy dem di euh, ci ci ñoo xamante dañ leen war a àtte mm-hmm. mais àtte dëgg ñooñu ñuy dem di di leen àtte ñi fay dem mooy justiciable yi dañoo war a wóolu ñooñu mhm. li jiitu ci justice mooy confiance justiciable bi mhm. parce que yow sooy dem nit ki di la war a àtte di war a nekk un arbitre arbitre bi war nga ko wóolu mhm. war nga wóolu ni kii ah kii de dana tranché ci aqulaay taalaam dañoo dem nag confiance boobu di di dégradé wu te li koy dégradé wu li aussi jàpp naa ni li ci gën a bëri mooy les affaires du politique affaire yoo xamante ni politique yi dañ ci impliqué wu. Mhm. parce que lu ñu gis loolu depuis 2000 la. Mhm. parce que man damay bëri wax ni. Mhm. gis nga régime bi fi nekk nii. continuité 2000 la. ok 2012. <laughs> beneen étable rek mais c' est une continuité. ñoo yem kiif kiif mooy lan man man mën naa ci wax parce que man dugg naa ci justice bien avant 2000. d' accord donc toog naa ci ñetti régime yu bokkul. Mm-hmm. mais jàpp naa ni deux mille ba deux mille euh, vingt trois bi ñu nekk nii benn continuité la. ay même pratique lañu. pratique yooyu ñooy lan mooy. Mm. justice de deux poids deux mesures. lu ñu mm. wax justice kumba am ndey kumba amul ndey. mooy dañuy gis ni ñi nekk ci nguur gi. Mm-hmm. suñ leen impliqué su fekkee am na loo xamante ni jàpp nañ ni def nañ ko. wala yaakaar ni def nañ ko. Mhm. mu am ay présomption mhm. parce que fii ak rek nit ki mënul wax ni nit ki def na wala deful. dëgg la mais dana am ay présomption par mhm. exemple mu am ay rapport cour des contre rapport ay ARMP rapport IGE. ñu ne ah ministère tel de wala structure tel de def nañu. ñu xool rapport yi fi am yëpp est-ce que am na ay topp yu ñu def. suivi. waaw wala topp nit ñi ay pour poursuite pénale ñu topp ay nit mhm. topp leen sax ba nit ñi ñu yegg ci àtte man waxuma sax ba ñu condamné leen ba ñu yegg ci àtte mhm. parce que xam nga àtte day étape bu am solo mhm. parce que audience bi c'est public et dossiers yi secret la dossiers yu nit ñi yore nii presse bi parfois day am ay ay fuite ñu wax mais munoo wax ni yow lii ñu wax nii am na wala amut képp ku ku nekkul ci dossier bi gis ko xam munoo am certitude ni lii moo ci nekk maintenant mm-hmm. su yeggee ci audience publique nag mm-hmm. foofu la public bi di mën a am information officielle d'accord léegi loolu su amoon ñun ci côté nguur bi mm-hmm. su fekkee ni ñi ñuy topp parce que chaque fois man damay ne neewuñu ni deux pois deux mesures kumba am ndey kumba amul du ni ñii defuñu mais sooy topp. waaw ñenn na rek bàyyi ñeneen ñi. loolu déséquilibre lay indi. Mhm. loolu du justice. Mhm. waaw parce que justice dafa war a tëddee njaaxaanaay te loolu aussi pour mu am. manjoon mhm. il faudrait que mu am ay garantie ci magistrat yi. parce que magistrat yi nga xamante ni ñooy àtte euh, ñun xalaat nañ ci. bind nañ ci ñeneen bind nañ ci mhm. dañoo wax ni il faut mu am ay réforme mhm. réforme conseil supérieur magistrature dañ ko war a changer ni ñuy tànnee magistrat yi mhm. parce que poste yu am solo euh, loolu sax beneen débat la. génne ci roxo président wala bañ cee génne. loolu beneen ah, débat la mais ñu bëri loolu la ñuy naan président mooy siège conseil euh, supérieur de la magistrature. du yoon mooy buur ak non loolu. Ah. loolu beneen débat la man am naa ci sama xalaat. d'accord boo xamante ni bon du du xalaatu nit ñëpp mais am amul solo. Mhm. lu lu ci am solo rek moom mooy président bu mu ci am influence. bu bu mu nekk ni moom mooy tànn. comme comme ni mu demee nii. Mhm. fii ministre de la justice moom mooy toog def proposition de nomination. Mhm. lu am solo mooy fonctionnement conseil supérieur ñu def ba comme France. da ngay xool conseil supérieur dafay am ay critères objectif yu ñu teg. ñu ne ancienneté ci la bokk ñu ne compétence ci la bokk ñu ne probité ci la bokk ak yeneen ak yeneen critère objectif ñu ne lii comme post bi yi ak yi ak yii critère la te gis nga euh, Mandione mhm. soo xoolee suñu réew mi hmm. corps boo xamante ni ci fonction publique bi ñu fi ëpp ñoo xamante ni presque cinquante pour quatre vingt pour cent effectif fonction publique xam nga ñëpp xam nañ ñan la enseignants yi la hmm. est-ce que mës nga dégg corps boo xamante ni c'est plus de cent mille presque cent cinquante mille euh, fonctionnaires mës nga ci dégg problème affectation mm. doo ko dégg mm, mm. parce que ñoom dañoo am ay critères yoo xamante ni depuis état généraux mm-hmm. de l'éducation nationale dañ ko def teg ko fi transparence totale la am kenn ku jëw ne man dama bëgg nekk directeur école primaire yoof ñu xool ay critère critères yi am na critère de l'éloignement mhm. koo xamante ni par exemple yàgg na Kédougou mhm. parce que da ngay am ay point looy mhm. gën a sori ngay am ay point ancienneté bi dugg ci notation yi dugg ci de telle sorte que ay point la ñëpp koy gis ñëpp xam ni que kii moo ko mérito mu leer nañ lay doon mu leer nañ loolu mën nañ ko am ci justice pourquoi pas pourquoi pas nit ñi proposé nañu loolu nag su amul c'est parce que aussi y a pas une volonté politique politique volonté politique bi parce que justice mënuñu ne rek magistrat yi kese man moo tax. Mhm. bi may def conférence de presse dama ne la la responsabilité première. Mhm. mooy celle du président de la république. lépp moom la kon. lépp d'abord moom la. Mhm. responsabilité première bu gën a bu bu jiitu ak bu bu gën a mag. président de la république la parce que mañoon. président Macky bi mu ñëwee moom. xawoon na am ay démêlé ci justice. Mhm. seen programme amoon na lu ñu ci diggoon ci mbirum justice. Mhm. notamment li ma la wax nii ku xool seen programme programme Macky 2012 su ma juumul article 18 ba ay 20 yooyu ci institution réforme institutionnelle yi ku fa mhm. dem da nga gis ni dañoo wax ni justice bi tëddeewul njaaxaanaay comme li ñuy wax nii ñoom loolu la ñu waxoon ñu ne loolu nag justice bi su mu waree am indépendance am dafa war a am réforme conseil supérieur dans sa composition comme dans son fonctionnement ñun waxuñu leneen lu dul loolu mais depuis boobu dara amu ci forage daal di waaw dara amu ci dara amu donc constat amer boobu la ñu def mhm. gis ni ba léegi justice confiance bi amatu fi mhm. li ñuy wax li kumba am ndey ak kumba amul ndey bi mu ngi continuer ba tey mhm. loolu nag euh, vraiment déception bu mag la ñun euh, jàpp nañu ni war nañ ci gën a taxaw. Mhm. parce que justice lu ñuy wax dañ koy réitérer. place bi mu am. Mhm. ci réew euh, kenn waru ko foowee. alors autant ngeen di dénoncer justice justice ci boppam wala acteurs yi nekk ci justice aussi ne fii jamono yi ci réew mi kilifa yi laay bëgg a wax ñoom tamit dañuy génn di défendre seen boppu que ne euh, ay wax yi maanaam yoon amul ci réew mi ay waxi waxi ku daanu ci saret képp la yoon am na ci réew te yoon ñu ngi koy doxal ci na mu war a doxee ci biir réew mi. mu nekk benn débat contradiction boo contradictoire boo xam te ne dafa am seen diggante ñenn ci benn pàcc ci réew mi jëm ci wàllum justice dem na ci sax ba yenn ci leader yoo xam te nii ku ci mel ni Ousmane Sonko euh, nee na am na ci yenn ci magistrat yoo xam te ni ñoom fa ñu toog Macky Sall képp donc kese lañ fa nekkal lu mu leen sant loolu la ñu def jox na ci sax exemple ki nga xam moo gën a dem mooy Ibrahima Bakhoum le procureur général est-ce que da ngay dëggal lu ni mel juge Dème non non man euh, ma waxee noonu hmm. <laughs> man je ne personnalise jamais man ci ci ay principe laay nekk ci laay resté mhm. parce que principe yi nag ku ne mën na dugg ci biir parce que kuy wax ci ay principe doo juum d'accord principe yi moom mooy lan moom mooy man jàpp naa ni mhm. le fait que ñuy wax parquet di communiquer wala justice di communiquer ñun dañ koy ñun man bi ñuy mujjee wax ci dossier bi mooy mujjee wax ci dossier Sonko Adji Sarr bi. Mhm. dama ne mais en fait yenn spéculation yi su nit ñi suñ koy di bañ. Mhm. ñi di wax te amuñu une information officielle parce que war na jóg taxaw communiquer communiquer nag choix la. Mhm. je pense que justice man ñi ma fa xam ay professionnels dëgg laa fa xamoon ay nit ñu xarañ. ñu xarañ. ñuy sélection magistrat ni koy tànnee du du ki qui la ñu tànn. d'accord nit ñu xarañ am xam-xam ba pare def seen maîtrise droit am xam-xam ñu former leen nag formation bu am solo. Mhm. théorie ak pratique. d'accord ñu former leen ci métier bu exigeant ñu former leen ci ay valeurs. Mhm. yoo gisee déontologie magistrat man am na chance bokk ci ñi xaatim li ñuy tuddee genre. code de déontologie magistrat en 2017 mhm. mais dafa am di valeurs yoo xamante ni ci la ñuy même magistrat même ni muy waxee sax dafa war a am ni muy waxee mhm. retenu bi te loolu sax ci serment magistrat la nekk xam nga mhm. magistrat warul am darul excessif waxam warul excessif waaw warul déborder yenn yi man ñu dañ may reprocher yu bëri damay naan ci ñaar la jóge ci sama yar suñu niñ ma yaree sama kër hmm. ak niñ ma formé ci biir mu mënu ma dugg ci champ politique bi politique bi changé loolu d'accord nga am retenue am réserve am euh, benn euh, même sooy wax dara mu am benn prudence bi hmm. voilà waaw nga nga nga nekk nit koo xamante ni dëgg Euh, attaché à la vérité. mais li ngay waxee nii li ngay joxee nii exemple. waaw ñu war a mel. waaw léegi léegi léegi <laughs> léegi parce que en réalité li ngay wax nii wute na lool. waaw parce que en réalité. Hmm. loolu moom mooy moom mooy magistrature. magistrature tout ce qui est excessif. Hmm. par exemple xam nga nit ñi daan nañu man man bi ma démissionné conseil supérieur magistrature dama def lettre. Hmm. lettre publique. bien avant may démissionné mais euh, bi ñenn ñi bi ñuy wax am kilifa bu mag bu ne moom bien que bind na lettre président de la république mënul ça veut dire acte de protestation la mais y a rien d'excessif amul dara lu mu wax loo xamante ni du dëgg ak ak aussi même xam nga sooy wax dëgg aussi warul ànd ak yenn excès yi hmm. excès yi warul ànd ak excès yi hmm. loolu moom mooy prudence mooy retenue mooy aussi euh, magistra dafa war a am délicatesse délicatesse mooy ni ngay waxee aussi mu nekk loo xamante ni du am ñu muy ñu muy ñu muy ñu muy waaw ñu muy gaañ ak yooyu loolu loolu mhm. euh, ci fonction yoo xamante ni yooyu yëpp da dafa bokk ci ci ci suñu liggéey mhm. te loolu nit ñi ñeen ci formé dewantul magistrat dafa am euh, dañuy am code mais dañuy am ay magistrat aussi yu ñuy wan métier boobu c'est un boo xamante ni jàng ko yombut donc su may dellu ci ci ci communication bi d'abord c'est nécessaire d'abord ñun war nañu rafetlu communication mais pour man communication warul euh, déborder warul euh, warul euh, communication daal hmm. dafa war nekk benn exercice boo xamante ni da ngay jox l'information au peuple au public. ñu xam information yoo xamante ni yu nécessaire du nekk ci yenn détails yi dossiers yooyu voilà voilà du duñ ci mën a sax gis ni kii bien que ay procureur est-ce que far na wala est-ce que farul est-ce que voilà jeng na wala jengul. d'accord loolu je pense que lu am solo la.